bu ëmb ay professionnels yi seen xam-xam màcc ci wàllum expertise ci biir Sénégal amal na lëlëm bu njëkk ci wàllum expertise gannaaw bu mu amee ñeent fukki at ci bu mu juddoo ak léegi. ñeent fukki atu CNES yëpp euh, fédération des experts daf ko doon accompagner. waaye président Adama Lam ñëwee daf ñu sonj pour que ñu gën a yokk suñu xarañte pour gën a mun a defaraat fédération bi ci loolu nag lañ nekk. Euh, moo indi tey organisation journée bi nga xam ne journée bu am solo la ci thème bu am solo. ñu nekk ci contexte économique bu jural ay jafe-jafe yu rëy. entreprise yi ñuy woowee PME. rawatina ñàkkum matière première bi ñu nemmeeku. lël bi doon ab prox ndoll ngir ñu ñaax yile boroom xam-xam. ñu mën a becc ci seen xalaat ngir jëmal kanam yile PME. dañuy bëgg gën a fexe formation yi nga xam ne ñu koy def Sénégal euh, euh, experts locaux yi di ko def ñu bañ jël expert étranger feneen pour di ko def. parce que Sénégal xarañ na ci wàllu capital humain ci wàllu woowule prestation intellectuelle. mu di ay borom xam-xam yu yaatu. jóge ci domaine bu ne. te daje ci biir fédération. FENEC signé ab protocole d'accord ak 3FTP ngir ñu gën a mën a dooleel suñuy PME. tey ñu amoon ci activité bi noonu signature convention boo xam ne daf ñuy lié ñun 3FPT ak kuréel bi nga xam ne moom mooy CNES confédération nationale des employeurs du Sénégal. suñu convention nag bi ñu lié dañ ciy xool rek nan la ñu mën def ba mën a tàggat. ñi composé fédération boobu depuis atum 2019 ma e sénégalaises yi di jànkonteel ay jafe-jafe yu rëy ci wàllum koom ñàkkum matière première yi ak jafe-jafe yu mu jural ci marché bi tax ba réew mi soxla xalaatu kàngam yi ngir mën a dooleel bile secteur bi nga xam ne ni day contribuer ci PIB réew mi lu ci tollu ci 33 pour cent.